ci am tax na ba nit ñi amatuñu maanaam euh, confiance ci fichier électoral bi Euh, parce que nit ñaa ngi naan ban fichier la ñu defee kii bi est-ce que fichier bu 2017 la bu 2010 la kenn xamul. ensuite la ca nekk mooy naka la la nit di mën a parrainer jox la photocopie carte ñu ñëw ñu ne gisuñu ko ci fichier électoral bi. loolu tamit day vraiment quand même lëndëmal xel yi nit ñi dañuy poser wu ay question légitimement ba xam est-ce que fichier bi fiable na wala fiableul. donc loolu yëpp vraiment ay problème la donc je pense que comme passé nañu euh, étape bu parenage bi parce que xëy na fii ak ay fan dinañu am peut-être euh, toutes les données wala tout en tout cas tous les éclairages nécessaires pour ñu mën a permettre vraiment ñu mën a tirer ay conclusions ba xam euh, parrainage bi même bu fekkee ne système de filtre la boo xam ne c'est nécessaire mais naka lañu koy mën a joyantee mu bañ a nekk un système vraiment d'exclusion des candidats